Le match opposant le Pérou et l'Australie a tourné en faveur des Péruviens. Tous les deux déjà éliminés dans cette compétition, Carillo a ouvert le score à la 18e minute, puis Guerrero à la 50e. Une victoire pour l'honneur, car leur billet de retour était déjà réservé. Au stade Lushniki, le Danemark recevait la France pour le dernier match de cette poule. Les Danois ont tenu et obtient la deuxième place qualificative. Les coqs n'ont pu chanter un match insipide. Les Bleus qui jouaient en blanc terminent premier dans cette compétition. Première 0-0 de cette Coupe du Monde de Russie 2018. Les Français étaient affreuses, mais a fait l'essentiel et jouera samedi son huitième de finale. L'Islande jouait contre la Croatie, 2 buts à 1 pour les Croates. Ainsi, les Croates qui terminent première de leur groupe. Le match que tout le monde attendait a tenu toutes ses promesses. Le Nigeria contre l'Argentine. Ça démarre très fort accélère avec une attaque de feu Higuain Di Maria. On est à la 14e minute de jeu, but pour les Argentins. Messi contrôle une longue passe de Banega, se présente devant Izoho, le gardien nigérian n'a rien pu faire. Avec cette frappe très forte du capitaine de l'Albi Céleste, but du Messi de toute l'Argentine, au but à zéro, les Nigérians sont cueillis à, froid. À la 52e minute, penalty pour les Super Eagles sur une faute de Mascherano, but de Moses, les Nigérians se relancent et en bonne posture pour se qualifier en huitième de finale. Mais malheureusement, à la 87e minute de jeu, Rojo crucifie les hommes de Gernot Rohr. L'Argentin ouvre son pied pour envoyer le ballon en pleine lucarne. Ozoho est battu et ne peut rien faire. Les Argentins sont en huitième de finale. Pour rappel que la France jouera contre l'Albi Céleste samedi prochain au stade de Saint-Pétersbourg depuis la Russie. KSTV. match bi doon dox ci diggante Australie ak Pérou équipe bii di Pérou ñoom ñoo mujj gagné ñoom ñoo dóor waa Australie ñaari bal ci dara joueur bii di Carrillo moom moo njëkk dugal pour waa Pérou ba ñu fubalee ba am dix ba ñu fubalaatee ba am juróom fukki minute nag jour bi nga xam ne moo gën a siiw ca Pérou di Guerrero moom moo dugal loolu moom moo jox victoire waa Pérou wante teewul ñoom ñaar ñëpp daggoon nañ seen billet pour ñibbi seen dëkk ndax toog nañu ba noppi. fii ci stade luj niki nag équipe bi di Danemark moo doon dalal France mu doon match bu jafe lool ci équipe de France seetlu nañu ne sax waa France dañoo am jafe-jafe lool pour dugal bi loolu moo tax équipe bii di waa Danemark am seen ticket pour mën a dem ci deuxième tour coupe du monde bi équipe bu France nag amoon jafe-jafe lool ba mujjee tembo 0-0 loolu sax mooy li waral coupe du monde bi match France ak Danemark mooy match bu njëkk bu am 0-0 ba kenn dugalul but équipe bu France nag jafe amoon na jafe-jafe lool waaye def na li pour mën a qualifier ci deuxième tour bi. ñu fàttali ne équipe de France dina jouer huitième de finale am samedi bii di ñëw équipe bii di Islande nag moo doon tase ak waa Croatie waaye Croatie daan leen ñaari bal ci benn loolu mooy li waral équipe bu Croatie ñoom ñoo jël raw gàddu ci seen poule qualifié nañu ci deuxième tour bi match bi ñëpp doon xaar nag mi ngi doon dox ci diggante Argentine ak waa Nigéria match bu tàmbalee neex lool match bi dem ci ñaari côté ku attaqué jox sa morom. waaye attaque bi nga xamante ni mooy attaque Argentine bi teg ci kaw Higuaín Di Maria tàmbali nañ bu baax mooy li waral loolu ba ñu footballee ba am quatorzième minute de jeu but Argentine dugal na te ki ko dugal mooy Messi gannaaw ba ko ba Banega passé benn passe mu contrôlé ko ñaari contrôle yu rafet daal di dugg ci biir surface bi dóor bi dóor bu rëy ba nga xam ne góolu Nigéria bii di Ozoho mënu ci dara ba ñu footballee nag ba mu am juróom fukki minutes ak ñaar muy cinquante deuxième minute de jeu waa Super Eagles yu Nigéria am nañu penalty benn faute bu Mascherano def jour bii di Moses jël bal bi dóor ko dugal ko fi ñuy wax ak nag Nigéria taxaw na bu baax pour mën a qualifier huitième de finale waaye ba ñu footballee ba mu des ñetti minutes ci fin de temps bi ci la joueur bii di Marcus Rojo dal di am benn bal bu am doole dóor ko mu dugg pour Argentine. loolu di wane ne waa Argentine nag bii boobu moo leen qualifié la pour ñu mën a dem huitième de finale ci fàttali ni équipe bu Argentine dina jouer huitième de finale ak waa équipe bu France bu Griezmann fii ci Saint-Pétersbourg depuis Russie KSTV.